سعد من في دلا زره إن جندا من خياف قد سرى هدى قلبي من خيال قد سرى mbokk xarit yi ñu ngi fii ci xabru Serigne Babacar ñu nga moy place kuy yaakar fi nga koy ñaan kan la ñu yaakaar Seydi Hadj Malick ku fi ne Seydi Hadj Malick waaye kan la ñu jàkkaarlool Serigne Babacar Sy kon ñun ñëpp nañu ñaanal borom rawdu bii waaye nang kañ ko uufal muy kan muy al amin borom xadara lépp boo deggee fa baayam waxoon wala fa maamam waxoon wala fa Cheikh Omar Fouti yu waxoon ni leen kat fii ngeen di gis ba ca doj wee Ndakaaru wee may seen Nasir xaq bi laax dina fa jokk waaye doomu faawaada mi moo ko fa yeggale waaye tey nag sëtam ba yeggale na ko fi ci àdduna bi yëpp muy al amin mi tey kon sang bi dafa am loo yëkkati woon mu sedd sama xol kan nga wax njool faama kan mooy njool faama doomu faawaadu wele mooy njool faama jarbaatu alfaama yoro wele bi kan mooy njool faama mooy bàyyi sëriñ Babacar Si mii waaw kon dama bëgg yow ci sa bopp nga yëkkatil ma Ndiol Fama ma dégg ko kon nag yi ngeen aw ko yéen ñëpp mm-hmm. bisimilah bisimilah jaxaay lu tee di xaacoy si lambeel Sénégalais yaa woon leeri diine xanaa baax anjol fama jaxaylul tëdd xaacoy si lambe senegale yawon leeri diine anjol fama jaxaylul tëdd dixa xanaa baax na Sénégal yaa wane leeri diine a bilaay waat naa ci barke baayu Mansour Si bu saa taxawee ñu xam ku yor raayaw diine a ah, njool de xaaj xanaa baax aa ah, bilaay ma waataat ci barke baayu Mansoor Si bu saa taxawee ñu xam ku yor raayaw diine ñool faama xaylul xaa xanaa baax ma Sénégalé yaa woon leeri diine ñu ngi jaajëfal maam as liggéeyam rafet na fii liggéeyam ci réew mi kuy siñeeg baax siñal nga ko te réew maa ngi kay dem foo taxaw jàkka yaa ngi réer ku fab kay salam miñ booy waxu baax waxal koko demal ndar demal jël jóob ba kawlax demal podor imaam boo fi woo la bay wax la géy ko moo ta sëriñ Aline Gueye ni ko danga ñëw Sénégal dëkk boo dem ña fa daan ub ya nga formé ko yow Maodo bañuy firi kaamil yay jiite jumaa yaay sampa xeer ya ataa biqaau suudi zulmun wa zulmatun bi faama bi sayfi lhamdi bil maxsi sudulati fasaara sawaaya fi qura jamiiha mila an bi fawjin raakiina wasi jadi bi nga defee loolu yamoo ca julli suba julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee dem seen yoon ñaari waxtu yooyu balaa jant bee fenk bu nu sëlmalee suba ñangalal mbalaan wasifa ma bu nu sëlmalee timis lalaat ko li aswaajin fii kulli yawmin wa laylatin dawiyun la daa sawaaya wa masjidi njool faama jaxaay lu la tee di waa cooy xanaa baax lambe Sénégal yaa wone leeri diin Anjol fama jaxaay lu la tee jaxaay coy si lambe Sénégalé yaa wóorete ni diine Maodo dem talaata ñu ni gi te yàlla na ko yàlla gërëm moo tax yéen bindi yi bu ngeen binde tey am ngeen lu ngeen bindi Seydil Hadji Malick Sy musta lekk lu ko lewul musta lekk yàpp musal naanum soow ba noo laaj ko mu ni dama xamul yapp wi nag wi ka lekkoon mus naa ruur toolu jàmburam déet ak jàmbur jooje topp soow meeg yàpp wi ku mel nii bu tëddee ci bàmmeel booy bind bindal ci moom booy jooy jooy ka tey walakin tafakkar